saa suñu wooyee situation situation boobu tribunal réew mi day taxaw réew mi dootul noppi réew mi dootul dox waaye li ci gën a garaaw mooy ñoom ñi koy woo tribunal ñooy suuxat fitna gi ñu ngi ma sew ñëpp ci li ñu dund tey ndax metti woon na ci ñëpp doore ko ci ki gën a yombule mooy ki nga xam ne tey bëggoon na xëy liggéey liggéeyut wala bëggoon na ubbi magasin ubbiwu ko ba ki ci jaf gën a jafele mooy ki nga xam ne gaañu na ci gaañu gu metti ci diggante boobu nag lu nekk ngi ci ñii jàpp nañ leen ci lu teguwul yoon ñii yàq nañu seen alal ñii euh, euh, sànni nañu saxaar su bon si ci seen biir kër ñun ñëpp ñu ànd di leen ma saw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 mu war a delloo yaakaar ci citoyen bi mu war a leçon pour attekat yi magistrat yi ñu delloo seen bopp seen xel ci yàlla serment bi ñuy prêter serment dañu askanu Sénégal askanu Sénégal du du gouvernement du troisième mandat am warul tënku ci agenda wu politique nous nu ñuy gaawantoo dossier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 moy bis bu ngeen amé fit ba yen yéen yéenay jóg jàkkaarloog patriote yi ya ci Sénégal yalla buñu mësa égg ci lool ndax biñu éggé ci mois de mars bëri na ci yeen ñi wa APR yi yu doon wër suñu kër naan dimbalé leen ñu dañoo bëgg transhumé ba ci mambay ñaam moomu yor ñam di wax fu wër na fa dem gisi samay nit neen wax leen ak Ousmane Sonko man damay transhumé kon fit amulen ko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 dina am lo xamne dinañ ko jébbal justice donte amuñu ci yaakar ndax li ñuy parax paraxee naan dañoo bëgg atté Ousmane Sonko man déposé na lu mat juroom ñenti plainte yo xamne 2017 ba légui justice traité wu ci ben juroom ñenti plainte ta tay tay tay bu kenn déposé won plainte tay suba ñu ne ñi ngay wo Ousmane Sonko lolu ban justice la waye comme li ñu def ni dafa li lo xamne dara mënu ko far